mbokki julit yi mbokki taalibe yi nga xam ne baxo a ak ñun ci sen site internet bi di al khadimiya, ci mission bi nga xam ne al lahu wal qalam ñu ci dalal lenn ci kat yi nga xam ne rañ ko lañ ci yoonu murid ngir jangat téere yoy nga xam ne bind nañ ko tamu laal istuwaaru sëriñ bi ak lu aju ci yoonu murid ak ji nak delu ci wat nañ ci fukkeelu jotaay ak juroom benn ngir wala andat ak kenn ci kat yoyu di kenn ci borom xam-xam yi di sering abdulahat lo mi nga xamne ne ku ñu xam la ci dekk bi di Touba ñu fasiyene and ak mom jotaay bi euh, di ko jéglu bu baaxit ci coono yi nga xamne ne toggoon ngir jotaay bi am di ñaani suñu borom subhanahu wa taala defal ñu ci tawfiq ba liñ ci bëgg ñu am ci lu kawe suñu Euh, téere bi mbind nag xëy na buñ ñëwee ba ci biir waxtaan wi euh, dana gën a leeral turu téere bi ak lu ci aju xam naa ci njëlbeen niñ baaxoo doxalee jataay bi rek mooy moom dana def benn présentation boo xam ne dana ci xamle lenn ci ay jaar-jaaram ci wàll xam-xam ak yëngutu yi nga xam ne ci lay yëngu jamono ji ñu toll kon ak docteur Serigne Abdou Lahad ñu ngi lay ziyaar di la daral di la jox kàddu gi bismillahi rahmaani وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كون بوكي توبو جاتاي بي تي سين بي دي القديميه القديميه ما نجي لين دي نوي يان نيب باخ دي تامبلي نيو بن تي سيرن جوب خضر ak sëriñ Mbàkke Mbegere ñi nga xam ne ñoo nuy ñoo nuy dalal fii ci ëtt bi di rafetlu it liggéey bi ak euh, émission bi di émission bu am solo boo xam ne mu ngi fësal ci liggéeyu sëriñ bi ci njabootam gi loo xam ne euh, mel na ne mëntoon ñàkk di leen ci sant bu baax di leen ci encouragé ci gëstu yeeg euh, yitte ji ngeen def daal ci turas Cheikh Khadim muy ndonom man nak abdul Ahad Lo la tudd tek fi fi Touba di jàngalekat nekk it inspecteur d'enseignement arabe dib gessu kat ci ndonal mourid euh rawate na ci al adab muy literature ak taarixul murit yee ba tey na ma waaye nag comme inspecteur d' enseignement la it dinaa di gëstu bu bare bare bare bare ci wàllu tarbiya sama jaar-jaar it di jaar-jaar yu yamamaay tàmbalee ko fi ñu ko baaxoo rek mooy njàngum alquran maa ngi ko defee dëkk bu ñuy wax tawfiq fii ci ginnaaw di daari Serigne Bay Ja ba fa jógee eh, laa tàmbale njàngum majaaris fii fi Touba sama kër baay bu ndaw sëñ Mahmoudan Lo fa la jàngee lu bari ci téere ba ma demee ba sori sax ci loxoom. daanaa ko booleeg di jàng ci daarul maarif ci jumaay Tuubaa ci alhaaji Mbàkke Jaxate waaye bi ma jàngee ba xaw a sori ci téere yu bare bari nag laa dem fa la ca Manaarul Huda Louga foofee fa laa jàngee yàgg naa fa def naa fa lu war a mat juróomi at fa la admis sax concours jàngalekat yi tàmbali liggéey di jàngale ci école yi waaye ginnaaw balaa am bourse jëm Arabie Saoudite ca Makka jaamiatumul Qura foofee laa jànge waaye def naa fa mu tim lu mat juróomi at ci kulliyatu luxal arabia xisma naqd wal balaaxa foofa la amee sama maîtrise dellu si ci Sénégal nag wéyal njàngale mi jàngale naa ci lycée yi lycée bi ñuy wax lycée Parcelles Assainies ci Dakar jàngale naa fa ay at yu bari e, dooga nag dugg ci concours inspecteurs yi ma ci jàllee def formation génn liggéey naa Kaffrine ñeenti at Thiès département yi liggéey naa fukki at 2018 laa ñëw jaareem ci IF e bi ci inspection bi ginnaaw bi laa dem EFI li ñuy wax CRFP e, moom tim liggéey naa fa ñaari at jamono yi may waxee ak nag maa ngi fii ci mu jàmm ak Cheikh Ahmad al Khadim di muy daaree sëñ Touba ji sëñ Muntaxa di tabax foofu lan ñu affecté waaye ci biir njàngale mi ak gëstu yi maa ngi doon yittewoo yokk sama sama njàng ci weneen wàll bi ndax nee naa la bi ma jóge arab Saoudite maîtrise la am bi ma dikkee fii dama euh, inscrire fii ci université Dakar sama master sama magistère maa ngi ko soutenir ci 2016 laa am sama master booba it laa daal di inscrire sama doctorat en 2016 17 ba daaw ci waxtu wi daanaka rek ci février laa soutenir sama doctorat loolu daal ci tënk mooy samay jaar-jaar yi nga xam ne moom moom laa mën a fesal ci jataay bi. ok jërëjëf sëñ docteur Al Moufatis ñu ngi rafetlu bu baax. leral yoyu ndax niñ ko baxo waxe rek lolo liñ ci jublu moy leg leg ñi dalal ñu xam ñoy kan dana ci baax euh, muy parcours bu rafet bo xamne ci njangum alquran ak njangum majalis ba doon ko xamne ne ji quran ñu ko la ci yoonu murit doyna sekk rek ci liggey yu am solo yi nga xamne ne ngi koy taxawé moy mujamma bi nga xamne ne sëriñ Muntaka taxawal nako bok ngeen ci ñiñ jël ñuy saytu lu jëm ca njàngale ma ak liggéey ba xam naa kon dañuy daal dugg rek mu baasaratan ci téere bi ngir bañ a guddal ci bunt boobu euh, téere bi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaanee day mel ne am na benn onwaan benn titre boo xamante ni tànn nga ko tuddee ko ko xëy na a xam onwaan boobu muy titre bi lan moo tax nga tànn tur woowu Serigne Abdoul Ahad waaw téere bi nuy waxtaane ci jataay bi maa ngi ko tuddee al bu'dul fanni في الشعر المديح النبوي للشيخ أحمد الخديم بل الشيخ أحمد بن باكر رضي الله عنه tur wi li muy wund rek al bodu mooy dayo dayo ab dayo la dayo maanaam daraja ju kawe al fanni ji nekk wàllu xereñ maanaam dayo bu kawe ci wàllu xereñ ci wàllu xarala gi nga xam ne sëriñ bi daf ko wane ci ràbb gi mu doon ràbbu ci wàllu làkk arab di ci bind ay way di ci bind ay tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ bëggoon rek indil ay firnde ci biir téere bi maanaam xarale googu ak xereñ nga xam ne sëriñ bi daf ko wane ci làkk ci làkkin wi rek ak ci ràbbiin wi loolu dafa euh, nekk loo xam ne day luy teel mën naa ne sax bu ngeen di seetlu ci njàngum xasida ku ci miin xasida yi léeg-léeg dangay euh, romb ci warab yu bari yoo xam ne Euh, xerañte googu sëriñ bi dina ko dina ko fësalal boppam sax dina ko fësalal boppam euh, maanaam am na fu muy wax ilaa maliki qad quttu lillahi xidmatan ilaa maliki qad quttu fi xidmati nabi ajiban daha man qad sama fi lugaatihi di wane ne eh, jagalal na yonente bi sallallahu alayhi wa aw tagg woo xam ne jommal na borom niveau yi kawe yi ci luga maanaam ci langue ak littérature jommal na leen dafa yéem a xar baaxe ba jommal koo xam ne ku xereñ la am compétence ci wàllu langue ak littérature gis nañu muy wax rafaana ila al maahi alladi zahzaha al husna madian ajiban axjala sajaa wal wasna ba tey it yëkkati nañ aw tagg woo xam ne gàcceel na lépp loo xam ne mooy asajoo te mooy an nasrul fanni wal wasna ak ashaara lépp lu nit mas a wax ci xeeti tagg wala ci mbind mu rafet moo xam ay way la wala wasar la euh, yëkkati na jagalal yonent bi sallallahu alayhi wasallam tagg yoo xam ne taggee gàcceel na ko kon ba tey loolu day wone maanaam xarañte gi nga xam ne moom la ñuy wax fii loolu kon moom mën na su ko tuddee al fen fanni e nga xam ne sax xarañte la waaye suñ borom tabaaraka wa taala dugal na ci ak mayam ak ay ay ay dugal na ci loxoom li muy wax naan euh, rafaatu إلى المختار لله خدمة مدادي وأقلامي زان ميزانا ولي زان ميزانا معنى تارال النسمة يوي معنى قضية جمالية وو خمنا موكتو دل بابهم لول دفع أم صلو دانك موي لما يوخرك البعد الفني موي دايوب خرين تجي دايوب خار لجنكتي ويني لول نيكو سرين بي يغون ديكو وحال بابهم نون لوكو نيم دون جفلان تل دون يك تديكو وحال امنا بين النار بتدو اشرف محمد الفاضل ابن احمد دليل اليعقوبي امنا وي يوم وي يوخن وي دقو دانكا فيمي النحو واللغة علم العربي والجود والسخاء عند الكرب شيمتهم فجاءهم ذو الرتب احمد بمبا من على بالرتب نجل حبيب الله ذو التأدب وعيمنا فسلب الجميع اي سلبي maanaam daa wax ne grammaire muy naxu uh-huh. al luga muy langue di littérature uh-huh. loolu de mooy xam-xamu naaru njëkk yi tabe nag mooy seen jikko uh-huh. waaye benn góoru yàlla gu kawe martaba dikkal leen di Muhammad Bamba di doomu Habibullah foqar ci mën nañu nangu jikko yooyu ak alal jooju nga xam ne mooy seen alal nangu ko منهم فصاروا معه كالخشب ñu dem ba mel ay bant man ay manatu ñu wax ak naari xam nga ni mëna waxe waye waxee waaye sëriñ beeg ni ko ci yàlla may day mel bo lënkelé waxi naari ak waxam day mel ne ñii ay jamaadaat lañ mom moy wax dem ba diko laaj nan ko ahmadu bamba ahmadu bamba ya akhat taqarrubi afa yahillu laka dhulmul arabi bi axdi judihim bi axdi nahwihim wa axdi al adabi wa axda juudihim bi waaw mu ne ko yow Ahmadou Bamba waaw yow mi nga xam ne yaay boroom jaamu yàlla yu mag yi waaw ndax daf la dagan ngay tooñ naar yi loo leen mooy danga nangu foqar ci seen naxu seen lànk foqar ci nangu adab muy littérature foqar ci ci ñoom maanaam euh, tabe dem ba naan yaa ajaban euh, yaa ajaban min zaalimin min saalihin muhadabi waaw li yéeme mooy nituk yàlla ku baax koo xam ne daal ku yaru la ami teggin waaye rek dëkk di tooñ yazlimu ahla diini ahla nasabi di tooñ ay mbokki jullitam ñi nga xam ne ay jegeñaale yonente bi sallallahu alayhi wasallam tooñ gi moom waxiin la rek waaye li mu bëgg a wax mooy daf leen a fekkoon ak seen alal ñëpp xame leen ko mu jël ko ci ñoom ràññi ko ci ba daanaka ñoom kenn tuddatu leen loolu mu doon wax nag Ahmed euh, Mouhamed Fadil moom li mu wax daanaka mooy rek liinu nu yëg nun ba bind téere bi tudde ko al fan fanni loolu daal ci tënk mooy li nga xam ne moo nekk ci ginnaaw turu téere bi jërëjëf sëñ almufattis ak docteur euh, day mel ne suñ déggee ni nga waxee mooy dangaa jublu rek ci tur wi wane dayob taar ak xarañ gi nga xam ne moo ne ci biir mbindum sëriñ bi rawatina nag ci wàll wi nga xam ne moo jëm ci tàgg yonte bi alayhi salaatu wasalaam boobu nga xam ne moom la doon def euh, nga wax ay bayit yu bari yoo xam ne sëriñ bi moom ci boppam da cee wane ni rawee arab yi ci xam-xam yooyu nga xam ne moo nekkoon seen xam-xam yu ràññi ko woon muy adab di littérature ak lugha arabiyya langue arabe ak lu melni sax nahwu muy grammaire te loolu buñ xolé bayit bam waxon rek da koy gëna firndeel ba an nahwu wal arudu wal bayanu li sulibat wali biha ayanu nahwu ak arud ak bayan day melni yalla borom subhanahu wa taala moy ko jox motax danaka nari naari ñu ci bari bari sédel ko ko niti yalla yi ñepp tamit nangul ko euh, kon japp nane ne onwan bi dal téere onwanu téré bi doon na lu am solo la ci ki nga xamne mo juk ngir bëgg a lu jëm ci tar bu rafet bi nga xamne mo moo nekk ci bir mbindum sëriñ bu lolu jallet ab téré wala ab gëstu ku koy defit du ñak dana am ay asbab muy cause yo xamne mo tax mu euh def gasu bobu mu gëstu suñ bëggona xam lan moy asbab yi dëgg-dëgg lan la waaw jërëjëf sëriñ bakké laaj bi am solo waye li nga tënke waxtaan wi amna solo ndax téere bi moom li ko tax a jóg lépp mooy wër ay seede wër ay firnde yuy dëggal wax jooju sëriñ bi wax ci taar bi nekk ci biir xasida yi li tax ñu taalif téere bi nag ay mbir yu bare bare la mënees na ko tënk rek ci ay point junj ci yenn li ci njëkk mooy xam giñ xam ne yi sëriñ Tuubaa yi mooy delluwaay bi gën a mat mooy delluwaay bi gën magit gën a wóor ngir xam ak dundam xam am njàngaleem xam ndonom ci walu xalaat ci walu xam-xam ci walu adab ak literature lolu moy mbir mu njëkk mi ñu seetlu it ne sëriñ bi mbindam lim bind lu bare bare bare ken mënu ko tak ñaar ñaari ñaari ñoy mandar gal mbindum sëriñ bi moy bari na te amna qualité leneen li ci moy loolu mu bind li muy bari bari na loolu waaye la ci ëpp ay woy la la ci ëpp ay way kon li mu way mu ëpp li mu wesar leneen li ci tegu it mooy loolu mu woy lu ca bëree bare bëri ay tagg yonent bi sallallahu alayhi ak julli ci moom yaakaar naa lu mel noonu nag wàccuwaayu mel noonu kon fànn bu ko jagoo ci mbind mu toll noonu dina jaadu ñu jagale la ab gëstu ngir leeral la nekk ci sa ginnaaw euh, li ci tegu mooy seetlu gi ñu seetlu ne nun taalibe yi am nañ ak gàttañlu ci mbindum sëriñ bi ci ni ñuy jëflante ak moom ndax ñi ëpp ci nun eh, dañuy yem rek ci njàngum barkeelu mi waaye duñ ko jéem a jéggi jëm ci njàngum settantal ak njàngum gëstu gëstu li ci xasida yi ci ay xalaat yoo xam ne mën naa defar ak dund ci ci tey dëgg la nag nda njàngu mbarkeelu dara féetewu kaw ndax jaamu yàlla la waaye ku ko boole woon nag di settantal di gëstu li nekk ci xaside yi ci ay xeeti xam-xam ak ci xalaat yoo xam ne mënees na ca sukkandik ngir defar tey loolu yaakaar naa ne lu am solo lay doon bi ci dagit mooy domaine bii di adab di littérature moom loxoy gëstukat yi daf cee néew lool gëstukat yi daf mel ne seen seen seen loxo mi ngi gën a euh, fese ci jaane fikri bi di ñu ngi ñu ngi jàngat jaane fikri bu ne daal ci sëriñ bi ñu ngi koy jàngat waaye ak a néew ay buxuus ak dirasaat yoo xam ne dañ koo jëmale ci jaane bi te jaane bi de moo ne na koo tuddee qadiya markaziya maanaam question centrale la ci e, e, turaasu sëñ Tuuba ndax jaanib adab bi sëriñ bi day mel ne moom la jàppe sax xaar baaxam maanaam karaamati xattu yet yi حط يدي في خدمة المؤيد نك لما آه. بيندي شيء تجي أنا آه. بس الله سلام لو ما يسمى ما يسمى نعم خدمة بابو متدو لي نجعلني مي المديح النبوي لي دوجي بير لي دوجي بير نا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ده وقت أي ما نام تجي أنا بس الله عليه وسلم ما ناس نسخ موت جيتو وعلول نبني كرامة هم قال القرآن الكريم يوسف صلى الله عليه وسلم خربا بني أملكوتي لين ما نتقبت وعربا هم بيجنا مك mooy xar baax bii nga xam ne mooy alquran nga xam ne jóge na fi lu ëpp ay junni at yu bari junni at ak lu bari waaye teewul tey saa yooyu sëggee ci alquran gën caa gis ay xar baax ak i man sëriñ bi it lu mel noonu la doon dàkk ci mbindam jóge na fi bu yàgg waaye teewut mbindam mii daal karaama gi mu ci wax da ciy feeñ ba tey jii kon loolu rek yaakaar naa ne jaroon na nag ñu gën a baral suñuy suñuy suñuy jéego loxo yi ëpp ci Eh, waaru wi nga xam ne mooy waaru adab yu mel noonu daal moo tax ñu ne nag nañu nañu nañ jéem a feeñal suñu yéene eh, bind ci jaanib bi te nag di ci woowoo bu baax woowoo ci gëstukat yi bu baax a baax ndax mooy alqadiya al markaziya ci trois sëñ bi karaamati xattu yadi fi xidmatil muayyadi loolu it mat naa bàyyi xel. jërëjëf sëriñ Abdou Lahad ci tontu bu am solo boobu euh, wax nga wax yu am solo ci li tax nga tànn. walu wi bind ci moy buñ xolé xoolee mbindum sëriñ bi dañuy gis ne bari na tayit and ak limi bari lepp amna tamit qualité bi nga xamne mo ci wara nek deug deug waye ci côté adab bi muy côté littérature li ci serigne bi liggéey buñ xolé ci bir am bindam dañuy gis ne jël na ci walu yaato yaato yaato ta li ëpp ci kat yi day melni amna yenen domaine yuñ gëna a hmm. muy xalaatu serigne bi ak doxinu yoon wi ak yu waaye bu dee ci côté adab bi mom liñ ci wax moy li ci am nii waanu ko ci bind comme ni nga ci bindé mm. tay nak japp na ne luñ wara bind la bu baax baax mm. ndax liñu ñuy ci école yi muy walum balagha mm. bayan badia ak fasaha lepp rek ku euh, xool euh, téré bi ni da nga gis ne and nga ci lu yaato yaato yaato nga xamné ne kat yi buñ ci sukkandiku won dañ ci mëna istinbat ngir tek ci sax programme bo am tini dañ ko wara mëna di ci bind bindum sëriñ bi Euh, xam naa su ko defee laajum ñetteel bi mooy gis nañ ne biñ jàngatee téere bi nag sëriñ bi moom ci côté adab lim ci liggéey bari na ci mm. wàll yu wuute la mm. waaye nag day mel da ngaa tànn benn jaanib muy benn côté boo xam ne ni nga ko waxee sànq mooy côté bi gën a fes ci biir am mbindam muy almadih annabawi muy tàgg yonte bi alayhi salaatu salaam lan moo tax nga gën a concentré wu ci jaanib boobu oh, waaw tàgg yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam day jaanib bu am solo lool niñ ko waxee sànq ci mbindum sëriñ bi euh, ndax euh, sëriñ bi it bokk na ci ay màndargaam bokk na ci ay mayam dafa doon waale euh, waykat yi nga xam ne ñoo waroon yonente bi sallallahu alayhi wa di ko défendre kooko ko wokk ñu xëri la ñoom Hassan ibnu Sabit Kaab ibnu Malik Abdullah ibnu Rawaha ak mboolem suara yi nga xam ne ñoo waroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko défendre te booba nag la tax ñu wër ko lislaam dafa tolloon ab diggante rek dafa tolloon ab diggante di doog a euh, juddu euh, milieu bi mu nekk comprendre wuñ ko ñu di ko xeex mu laajoon nag maanaam bu doon suñ jamono ay organe de presse ay groupe de communication yoo xam ne dañuy taxaw ci wetu woote bi di ko aar di ko taaral loolu rôle boobu ñoom Hassan ibn Thabit doon def sëriñ bi daf ko doon na ci ñoom ci contexte bu nu roog boobu ndax jamono yi muy woote wooteem bi euh, ku ne xam na ne boobu Sénégal toll na diggante ndax booba la fi tubaab yi di samp di fi indi seeni xalaat di def li ñu tuddee réseau fikri yi maanaam songu jullit ñi ci seen wàllu pas-pas bëgg fa sol bëgg leen a sol yeneen pas-pas aqidatu taslis gëm na yàlla du kenn rek waaye ay yàlla am ak yu mel noonu kon jàpp nañ ne euh, almadixu nabawi dafa bokk ci projet de rénovation maanaam mashruu tajdid bi nga xam ne sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu moom la indi woon euh, ngir di ci xeex ak jàmmaarloog noonu lislaam yi yi nga xam ne ñoo gooroon ci suufu Sénégal di di songu jullit ñi di leen songu ci seen ci seen ci seen euh, xol ci seen pas-pas euh, am na benn xalaatkat bu mag bu ñuy wax Mouhamed Salim El Awa wax na ne xeet wu mën a doon du ñor ci xolam yëg-yëgu yeesal lu dul bu tolleeb diggante am ay taxadiyaat am ay pakk ci kanamam bu xeet wi tollee foofu it ñi nga xam ne ñooy gàddul xeet wi yëg-yëg boobu di ko jëmmal ñooy ñi nga xam ne dañoo am cosaan lu dëgër am delluwaay boo xam ne ci lañuy ñuy natte seenu dund euh, lu mel noonu nag bu ñu ko nattee ci sëriñ bi dañuy xam ne kon tolluwaay bi amoon na fi crise bi mi ngi foon défi mi ngi foon taxadiyaat mi ngi foon mooy colon yi euh, cosaan lu dëgër liit li gënoon a wóor mooy delloo nit ñi ca yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne ne kon yonente bi mooy nekk mooy marjiiya bi nga xam ne sëriñ bi daf cee delloo woon euh, taalibeem yi ak jullit ñi jëmmam ji ak euh, doxalinam wa ak lépp rek yonente bi sallallahu alayhi wa léppam sëriñ bi daf koo daf daf ko daf ko doon jëmmal ci biir tagg wi li ma bëgg a wax mooy daanaka tagg yonente bi sallallahu alayhi wa ci sunna la bokk daa bokk ci sunna lu taxoon ñu ne ci sunna la bokk gis ngeen borom xam-xam am na ñoo xam ne bu ñuy taarif sunna la ñuy wax maa uthira ani nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fialin aw taqrir aw sifatin xalqiya aw xuluqiya mooy lépp loo xam dañ ko solo jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam wax la wala jëf la wala lu ñu wax ci kanamam mu baca wala aw melokaanu bind wala melokaanu jikko waaw melokaanu bind ak melokaanu jikko nag fi la tàgg wi doon jëm nag ñaanam ñee bañ dikkee andi seni valer valeur andi seen yenen bëgg koo imposer mi sëriñ bi ci seen wet nak la teg jëm yonente bi sallallahu alayhi wasallam di feeñal ay melokaanam di feeñal ay ay ay ay ay jëfam kon loolu mel na ne benn jumtuwaay la woon boo xam ne ci la sëñ doon sukkandiku ngir fesal ci ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ko nazafatu kulli min al-laghwi taharat wa sunnatahu insha rabbi ubayinu ñu bàyyi xel ne sunna jooju tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam feeñal ay jikkoom daa nekk ci digg ba kon loolu ñu bàyyi ko xel ndax li may wax ne tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dikk ci contexte colonial tanabahu jooju mu wax ci tazawudu shubaan xaw ma tanabahu yaa ayyuha shubaanu qaadakum ilal ilal hudal mannaanu fi anna sunnata nabiyina al amin alayhi afdalu salaati kulla xiin kaadat tura ka rasmi daarin qad afaa في ذا الزمان لمضي الحنفاء معنا ببيدك لب لي معالم السنة ما خم جيكو ينتبه لك أي ملوك أنا مك أي جفا مك لول دفع من التامبل وانا دي راف من دفع رابون مونيو نك موب كون بغ بيسل لول كون مل نينا مغالب النيران واو لكسرة الجهري على الناس على الناس يقتفى واو رير رير كتسارو اوكي واو غير غير réer gi dafa matale woon kon mu lool waaw koy dafa dafa matoon ci mboolem wàll yi nga xam ne moo matoon a xam kon nga gis ne mel na ne kon wépp baytu wu ñu yëkkati ngir tagg yonent bi sallallahu day mel na ngir delloo si tabaxaat personnalité jullit bi la woon ndax ci am na beneen modèle buñ teg ci wetam ngir màbbu ay ngëm-ngëmam kon nag baytu wu jóg rek day mel ne ab mool la buy tabaxaat euh, euh, saxsiyatul muslim bi nga xam ne li ko narmeel daaneel ko mooy bidaa yu bari comme ni ko sëriñ bi waxee ak xës fikri ak yu mel noonu kon mel na ne tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci contexte bi ko sëriñ bi doon def xawuta wuuteeg na ko ñoom Hassan ibnu Saabit doon defee bu fekkee ne bii rawul sax ndax bii difficulté yi dafa gën a dafa gën a compliqué fii loolu yaakaar naan mooy leeral li sëñ bi naan raditu an il baaqi wa an xayri xalqihi wa fi madxi jaawasu kaaban wa xasaana yaakaar naa ne am na am na lu tax mu lënkale tagg yi mu tag yonent bi ci contexte bi ak tag woo ko ñëlee daan tag am na am lii nuy wax daf ciy feeñ ci gàttal daal tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëñ bi daf ko defoon ab manhaj islaahi maanaam méthode de réforme la ko jàppe woon euh, wax na ne wajjahtu madhi li jamilin abhaja wa dhikru fadlihi gada li manhaja waaw maa ngi jëmaleel yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu taaru mi aw aw aw tagg waaye tudd nga ne lam fesal ko dafa mujj nekk sama méthode bopp nag maanaam méthode bi nag jàppale ne méthode xeex la arme la bu muy xeexee contre tubaab bi moo tax mu wax ci geneen xasida lillahi hamdi walil maahi nabi midahi walhamdu walmadhu asiyaafi wa armahi waaw maanaam yàlla maa ngi koy sant di tagg yonent bi saa sallam ne tagg tagg euh, wala sant yàlla ak tagg yonente bi ñooy samay jaasi ñooy samay xeej ñooy samay arme yi nga xam ne ci laay ci laay jàmmaarloo ak noonu lislaam yi kon jàpp naa ne euh, loolu boo ko boolee euh, day mel ne doy na sëkk firnde ju war a tax nit ki war a yittewoo gëstu ci tagg yonente bi sallallahu ndax dafa bokk ci ci ci ci ci xeex bi xam nga bam naan xusuuri xalaat والاهل عني تفرقت لمدح الذي عنه المديح قصير لو تخ نيو غينيكو ريومي نانا يعني لمدح الذي عنه المديح قصير كون مانام لنكلي تاغ يونس صلى الله عليه وسلم اك خيخك نون الاسلام ييغا خا نيو سونغون ريومي ياكارنا ان لولو رك آه، جانغاتكو خامكو دوينا سك فيرندي ولا بريتكس بور نيو خام ا امبورطانس گسو بو ملدي jërëjëf sëriñ Abdul Ahad ci tontu bu am solo boobu mel na ne li tax nga concentré wu nag ci tàgg yonte bi alayhi salaatu salaam man na ko lool ndax buñ sukkandikoo ci firnde yi nga andi day wane na moom sëriñ bi jamono yi nga xam ne moom la ko suñ borom tànn yónni ko ngir mu yeesalaat diine lislaam boobu am na nu mu fekkoon réew mii di Sénégal am na nu mu meloon ci ak yàqute goo xam te ni tasaaroo woon na ci wàll yépp moo xam muy ci côté ñi nga xam ne ñooy njiit ñi njiit yi jiite muy kilifay diine wala kilifay aada wala sax ci nit ñi ci boppam loolu bay di nga indi rek ak yeneen yu dul moom da koy gën a firndeel bu baax a baax tey it mu doon ko xam daa donnu waykat yi jiitu woon doon défendre yonte bi sallallahu alayhi muy ibnu saabit kaab ibnu malik ak abdullahi ibnu rawaha nga xam ne taxawoon nañ taxawaay yu am solo ci di défendre yonte bi alayhi salatu wasalaam ci seeni bu yëfar yi yéefar yi jugee daal ci kawam ñoom ñu jug tontu leen ne sax joxoon na ndigal xasaan mu saabir comme ni nga ko waxee ah, ngir mu xas leen hmm, ngir mu défendre ko ci jaaseem euh, ak euh, li nga xam ne moo di xalimaam hmm. te ñoom ñaar yooyu ñaar yooyu yëpp lañ boole woon waaye nag sëñ bi nag bi mu ñëwee day mel ne daa doon loolu lépp ci anam goo xam ne anam gu gën a yéeme la kon daal bunt la bu am solo bu am te nii euh, xëy na waxtu wi mooy tax sax duñ ci mën a xuus xuus bu yaatu waaye liñ ci indi doy na xam naa nag su ko defee nag téere bii nga xam ne mooy alfan ni nga taalif ko ab téere ku koy taalif dana séddali ko ci ay fosul yu baree bari muy ay parti yoo te nii ci nga koy xaaj séddale ko ci gis nañ ne téere bi euh, am na benn tamhid boo ci def muy benn introduction daal di koy seddale ci ñeenti fasl fasl bu ne am na ay tomb yoo ci jàngat indi nga tamit benn xaatima Euh, xam naa ci faslu bu njëkk bi day mel ne yaa ngi ci jàngat ak a leeral lu jëm ci jaar-jaari sëriñ bi mm. looloot boo ci gënee mën a taxaw ngir ñu mën a xam dëgg-dëgg lan moo waral solo soosu waaw xam nga ni nga ko waxee rek ñeenti faslu la ak tamhid tamhid bi mooy laytaay euh, mbind mi ci laytaay bi ne dañ ci indi dunduk sëriñ bi dara ci dunduk sëriñ bi ak euh, maanaam solo si ci làkku arab amoon ni mu yittewoo woon njàngal luxa arabiya loolu maanaam waaye nag yittewoo dunduk sëriñ bi ci njalbeen gi lu tax loolu euh, ngir tontu la ci lu gàtt rek euh, ñiy gëstu ci wàllu naq adab yi xam nañ am na lu ñu tuddee ay manahij adab yi ay méthode critique littéraire loolu ñoom ñaare dañuy dañuy dañuy laajtu dañ naan ngir nga dégg li taalifkat bi bind ban bunt moo ci gën a gaaw xam ko moom ci boppam xam jaar-jaaram walla nga bañ a xam dara ci moom sax te sëgg ci mbindam ñu ne ban moo ci gën a gaaw foofu la li ñu tuddee manhaj naqdi foofu lay ubbi ndax am na lu ñu tuddee al manhaju nafsi mooy méthode psychologique bi boobu moo lay may nga mën a lañ bët dunduk taalifkat bi xam sew-sew ya ndax xam dund gi xam sew-sew yi dina la indil nga xam ci mbind mi maanaam wax ji bala nga koo xam dëgg dëgg dëgg nga xam ki wax mooy kan loolu almanhaj am na nag ñeen ñoo xam ne fan fanni nga xam ne jëmmi wax ji rek la ñuy tewoo bi xaddi nasar anil anil qaayil am lu ñu tuddee manhaj mutakaamil mooy bu boole ñaar yi ñun nag daa mel ne maanaam loolu lañ bëggoon boole ñaar yi tàmbalee ci jàngat dunduk sëriñ bi bañ xam mooy kan dama la jox mel ni misaal maanaam boo ne xaatibuha fil baxri boo ko waxoon naar boo xam ne xamul xamul sëriñ bi xamul jaar-jaaram uxaatibuhu fil baxri wa huwa bi taybatin maanaam day yaakaar ne ku doon sëmb ci géej la wala mu doon tukki ci géej nangam nangam waaye du xam xalfiyaat yi nekk ci baatub albaxru ci contexte bi waa contexte waaw waaw kay loolu mooy tax waaye boo xamee boo xasee xam ak dundam xam ne am na xayba baxriya yu bëree bëri baat bi di di albaxar wal bar di ñëw ci ay kem da xam lim lim jublu ci ñaar yooyu loolu moo tax ñu ne woon nañu tàmbalee ci eh, xam dara ci ak dundam dooga nag ubbi nag gëstu bi dëgg dëgg dëgg dëgg jërëjëf Abdul Ahad wax nga lu am solo muy ab téere léeg koy bind eh, di jàngat eh, mbind moo xamante ni defoon na ko leg leg it ngir nga mëna a xam deug deug solos mbind mom faaw nga dellu xamle ki bindu moy kan te lolu amna na ci xamle nga serigne bi xamle tamit nim mu yitte woon langue arabe japp na ni li nga bind tamit ci domaine bobu la jëm comme biñ xamé solos yi nga xam mom langue arabe amoon ci bir mbindum serigne bi dana don ab laltay ci ki ñew di jang mu mën kon mbind mi kat nak ci walu bi la jëm euh, su ko defee ci faslu bu ñëk bi muy faslu bi nga xam dañ ci ñëw jàngat ci lu am solo muy albood assuur yi euh, fi am daaxi assoyxi ahmada bamba mooy it xëy na boo ci mënoon a taxaw dënkal ñu afkaar yi nga xam ne jàpp nga ni moo gën a rot ci bunt boobu waaw albood assuur yi moom tim day mel ne maanaam dimension sentimentale bi day laytaay moom itam woy yi ndax maanaam jaanib bi bu amul ci woy daanaka mën ngaa gis ni nazmu rek ay abiyaat ay baat yu ñu rangale waaye dëgg-dëgg lu mel ne ruuxu ruuxu ruuxu bi daal day day day day day fàddu baat bi ma ci gën a yitteel ci fasl bi mooy li muy tuddee at tajribatu charia at tajriba charia mooy expérience poétique nit ki balaa moo woy dara ci benn mawdoo ci benn thème war na koo yëgal boppam dund ko yëg ko doo ko way eh, masalan léeg-léeg nga gis nit man ab waykat mënut a toog ba mu yàgg rek mu ne ah man de fan yi man de gëj na maa way mm-hmm. man de gëj na maa temps yi de war na maa way war war na maa mm-hmm. kon naa daal di yëkkati xal yi maa di bind xam nga loolu du way mm-hmm. ndax yëgagul dara moom daa toog ba mu yàgg mu ne géej naa way rek mu ne naa way fan yi wala ñu ne ah, dafa am de gan gu fii dikk waaw ñu bëggoon ñu bëggoon nga wayal nu ko dafa am gan guy war a ñëw Tuuba ñu bëggoon daal sëñ Mbàkke yow nga wayal nu ko xam nga boo koy way day mel ne yëg-yëg bi judduwutoon ci sa xol yow nit ñi ñoo la ko sol rek. <laughs> day day feeñ lool loolu mooy loolu mooy ñàkk ñàkk ak tajriba ashariya sëriñ bi nag day mel ne loolu dalu ko ci lim doon way eh, ndax tajriba shariya ni ma ko waxee rek maanaam bu amut eh, lu mel noonu rek moo ciy juddoo gis nga kuy way ak kuy wayantu daal day am maanaam di tisooli ak di tisooli tisooli day am lu mel noonu la bu buñ ne laa woyal wala nga ne gëj na maa woy da ngay mel ne da ngay tisoolite tisooli gu ñorut wayu ñorut nag loolu loolu moo koy waral ñaare moo tax eh, ca ba ci mag yi arab yu njëkk yi am na ko ñu wax zurruma dafa am ku ne ko waaw yow nan ngay def boo demee ba mu yàgg bunti woy yëpp tëju bunti yëpp tëju nga xam ne amatoo xala amat tëju nga daal tey daal neexle woo mu ne waaw man nan la bunti woy di tëjoo sama kanam te man mayor ay caabeem ñu ne ko lan mooy caabi yow caabi way mu ne wéet di fàttaliku say soppe wéet di fàttaliku say soppe mel na ne baat boobu nag ku ko ku ko ku ko méngale woon ak sëriñ bi nga gis dañ ko nafiyu dañ ko exilé mu def juróom-ñaari at ci benn barab wéet fa waaye di fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, di ko fàttaliku di ko tagg di fàttaliku suñ borom di ko kañ loolu yaakaar na dina doy dina doy sëkk li nga xam ne mooy li ñu tuddee tajriba charia moo tax danga ci mbind lu daani ila madhi nabi yooyu loolu mooy loolu mooy tajriba daani ila madhi nabi xubbu zaati waaw daani ila madhi shafii muhammadan waaw amaani yooyu yëpp mooy li ñu tuddee ay tajriba charia muy ay xeet yu bëree bëree bëri waaye loolu dama ko cee wax noonu rek ngir ñu xam ne sëriñ bi lépp lu mas way lu mu dund la lu mu yëg la lum lum lum jànkoonteel la euh, saf way du tax ko tax ko tax ko yooyu day dem ba nga xam ne lii lum dund la lum gëm la mu wax mu wax ko moo tax loolu day feeñ ci wax ji da dara lu ci xasu doo ko ci gis ndax loo loolay tax loo loolu yaakaar naa ne ci comme waxtu bi dafa tënku ñu loolu bi lépp ci loolu lay wax anwaa tajaaribi shi'riyya benn bu ci nekk ñu indil ci ay abyaat andi ci ay firnde yoo xam ne day day wone loolu jërëjëf sëriñ Abdul Ahad euh, day mel ne bunt boobu bunt bu am solo la muy yéeg-yéeg bi sëriñ bi daan am ba tax muy jël xalimam di tàgg yonte bi alayhi salaatu wasalaam day mel ne ci nga gën a tërkiis concentré wu ci ta bayr yooyu nga wax rek doy na sëkk fële daani moom leer na moom <laughs> daani ilaa nabi xobbu zaati yi moom moo waxal boppam ne li ko posé jëme ko ci tagg yonte bi alayhi salaatu salaam mooy bëgg jëmmam te bëgg goo xam ne am na sax daa daaw ne bëgg gu dëgg kon looloo ah. day gën a firndeel eh, tajriba siariya bi nga xam ne day feeñ ci biir mbindum sëriñ bi xanaa buntum ñaareel bet buñ xoolee dañ gis ne moom bu am solo la muy nga indi ci handasatu al qasida fi shiari al madih an nabawi eh, moom xëy amna ay afkar yu bari bari yo xamanteni ron na ci waaye du ñak nga tan ci yenn yo xamanteni da nga ko mëna andi ngir mbokk yi gën ci tektalo waaw kay fa handasatul qasida fi amdahi nabi sallallahu alayhi wasallam mhm. eh, liñ ci jublu rek mooy eh, manam eh, qasida gi bu doon ab tabax wala mu doon jëm bopp bi dënn bi tànk yi li la ci digg ba ba lamuy loolu nag daanaka du lu du lu simple ndax euh, boo seetloo ci al adab al arabi al qadim nuqaat ak nuqaatul qudama demoon nañ ba xaw a coloniser nit ñi ba shaair bi pour mu euh, joxe way wuñ nangu valable ñu valider ko faw buy buy tàmbali daa war a def ghazal daa war a way ci jigéen jóge fa wane na dama doon tukki war mbaam wala war gileem jaar ci àll bi def ni def ni ba keroog muy àgg ci li ko tax a jóg. al bukaal <laughs> waaw waaw kay waaw la noonu nag loolu nag lañ dem ba loolu la ñu tuddee ñoom euh, maanaam am na nuñ koy tuddee amud amudu siyaar loolu nag sëriñ bi bi mu dikkee mën nañ ne dox tënku ci loolu moom mm-hmm. kon lim njëkk a def mooy al muqaddimatul ghazaliya maanaam xeeti xeeti xeeti caaxaan yooyu maanaam tàmbalee di way ay ay jigéen ak ak yooyu loolu la njëkk a gàddaay moom mën nañ ne daanaka man de li ma gis ci gëstu bi moom ñaari xasida rek laa gis mu def ci lu ko nuru te boo ko càmbaree xam ne ghazal ramzi la waaw ghazal ramzi la mooy Ahmad Souleymane ak ali zikri salma is atat ka bi manzilin ñaar yooyu kon kon li li ñu njëkk a seetlu foofu mooy li arab yi tegoon war ca tënku moy di def ghazal bala nga def dara mom bimu mu dafa teggi lola tek fa muqaddimat diiniya buy tamale tàmbalee bismillahi rahmaani wala alhamdu wala mu tamale rek ci xarat bi mubasharatan lolu lolu kon moy liñ ci njëkk a seetlu albuka alal atlaalit def ko gis nañ dem mu buka mais albuka ala saadaat xoq albuka ala saadaati namwaati loolu it ba tey. méthode eh, bu bees la bu mu andi tamit. <laughs> wuuteeg lañ xamoon. wuuteeg la mu xamoon waaw waaw su ko defee loolu. naka noonu boo demee eh, eh, ci ñaari xasida yooyu rek. ci lañ gis xëy na xusnu taxallus. mooy Hamad Souleymane ak ak. Ali Zikri Salma. xaatima bi it ñaare xaatima diine lay doon. Mm-hmm. julli ci yonent bi saa salaam ñaan. loolu loolu ba tey lu bees la. Mm-hmm. donc taxarur bi mu amoon liberté bi mu amoon ci tànnal boppam méthode ci wàllu way te indi ci loo xam ne kenn mënta indi lu ko euh, ëpp loolu ba tey bokk na li mandargal bunt bi li ci des mooy li ñu tuddee al muajamu shi'ar yi maanaam euh, vocabulaire poétique ndax euh, shaa'ir bu ne day am ay baati boppam yoo xam ne mooy gën a fës ci ci ci ci liggéeyam loolu yaakaar naa ne waxtu yi du ko may waaye gis nañ ay baat yoo xam lu mel ne alxidma al alxitaab al al al xurba am bare na daal ay baat yoo xam ne daanaka boo ko càmbaree da ngay gis da nga koy gis ci mbindam xam ne daanaka màndarga ci ci ci ci mbindam da koy da koy faral di waxe daal loolu it ba tey bokk na ci li nga xam ne moom lañ jàngat ci ci bunt boobu xam naa waxtu moo xaw a tënku waaye mënees na koo yemale foofu rek. jërëjëf suñ docteur day mel buntu ñaareel bi moom daa doon buntu bu am solo. ndax euh, moom dangay gis ne sëñ bu mag bi radiallahu taala anhu andi na ci ay tajdid muy beesal ah. na daal lu ah. bëree bëri ci ah. loo xam ne arab yi dañ ci daan tënk nit ñi muy waykat yi moom nag bi mu ñëwee moom dafa am xoriya ci tànnal boppam li mm-hmm. muy tàmbulee ay xasaayit même buy jeexalit nga gis ni muy jeexale day wuute ak waykat yu njëkk ya nañ daan jeexale ñi di tudd ay jigéen di wane ab taaram ah, moom ay wayam moom loolu da koo sori ah, soril lool ah. rayatu anzami anit taxasuli mën ne soril na ay wayam ci <laughs> di tudd taarub jigéen wala yu xeetoog yooyu donc nga ci Hamad Souleymane boo xoolee day mel nag xazal la def waaye xazal Ramzy la ko waxee xam ne day mel ne kuy wax ak jigéen fekk ne ah, àddina lay wax àddina lay ah, moom yaakaar naa lu am solo la ci mbindum sëriñ bi moo jam bi tamit li nga wax ah. booy xool mbindum sëriñ bi ñoo hmm. xam ne baaxoo nañ di jàng ak liir mbindum sëriñ bi léeg-léeg sax man ngaa gis xasida gu bees ñuy sikki saaka ndax sëriñ bi moo ko way wala sëriñ bi wayu ko te doo ci amagul ay firnde waaye léeg-léeg boo xoolee xasida gi jàngat ko rek hmm. da nga am waxin yo xamne bok ci gisee dañ la nuru ah, ah, binum sëriñ bi lool te loolu yaakaar naa na ci biir bu baax ba xamna buntu ñettel wet mo buntu ba am solo muy albinau al musiqi fi euh, as-shaykh ahmad bamba mu jëm ci tag yonte bi alayhi salatu wasalaam hmm. mo buntu bobu yan afkar nga ci japp ne mo mata waaw fofu fofu yi de xamna li mata leral rek moy ci walu dirasat adabiye dirasat buñ ne al musiqa musique lañ ci jublu waaye mooy jaanib arut arut ak xaafiya arut ak xaafiya ndax xam nga woy moom ay daaj la waaw daaj daaj loolu rek la nuqaat yi di tuddee al musiqa mu am ñaari xeet al musiqa daaxili al musiqa al xaarijiya waaye ci al musiqa al xaarijiya mooy musique externe mooy mandaxa mi wazn bi baxru bi ak araf yi mu jeexee arafu daaneel yi muy xaafiya bi loolu musiqa daaxilee nag moom nu ñu tartiibee yi ba joxe beneen beneen beneen beneen rythme la waaye li ñuy seetlu daal mooy bi ci wàllu awsaan ci wàllu buxuur yi nga xam ci la sukkandiku ngir taalif madaayix yi li ñu al buxuurul xaliliya yi nga xam ne al Xalil ibn Ahmed al Farahidi moo ko iktishaafoon daanaka nañ ne ci la sukkandiku ci la sukkandiku ci la sukkandiku li gën a bari ci boxoor yim ëpp yim andi mooy yi ñu tudde al buxuur al xaliliya mooy ay tawil ak basit ak rajas ak kaamil ak yooyu nga xam ne xalil la andi woon xaafiya bi li ëpp ci xawaafi yi mooy ni ko arab yi daan defe mooy araf araf maanaam xasida gi yëpp jeexe wenn araf daanee daanoo ci benn araf loolu it ba tey mën nañu li ëpp non la ko doxalee teewul nak lay lay mu dugg ci qasida am ay qawafi yu bare bare bare bare bare loolu li ba tey moom jaanib tëj di di la daal ma comme niñ ko waxe am nañu ko am nañu koy def nak ñeneen am na xal duñ tënk sax ci qafi mom waye mom nak mom moom am na ci dal ak tànnu bopam ak méthode bopam kon buhur khalil ye moy ep amna dal qasida xasiid ak mawaahibu naafia moom fii ma moom tamit diraasa nañ ko ci xool ba xam ci ban wasnu la waaye ma mawaahib boo ko xoolee mënoo koo delloo ci benn baxar ci buxuur xalil yi mënoo ko ci delloo maanaam benn baxar ci buxuur xalil yi du ko du rajas du kaamil du tawil du basit du yooy yëpp daal diraasa bu xaw a compliqué la waaye duñ na sax nag moo ci njëkk way loolu it wax dëgg yàlla duñ ko wax ndax man gis naa abu nuwaas nga xam ne shaayir abbaas la way na ci sulaafu dan nin ka samsi daj nin ka law ni ka def ka dam i jaf nin ka xamre dan waaw yaa man laxaani ala zamani waaw allahu shaani fala talum nii way na ci am na ñeneen sax ñu ci way ginnaaw ginnaaw abu nuwaas ki ñu wax حازم القرطاجني tudde na baxar bi baxaru laaxiq baxaru laaxiq ni ma ko man yàlla dogal sax tudduma tur wi waaye tafilaat yi ma mujj wax rek moom la wax moom mustafilaatun mustafilaatun mustafilaatun mustafilaatun boo demee ci minhajul bulaga minhajul bulaga boo ko ubbee da nga da nga ci gis loolu waaw da nga ci gis loolu nga xam ne tafilaat yooyu loolu la ci indi kon loolu jàpp nañ ne jàpp nañ ne tëj diit la daal néewuñu nag moo ko njëkkee waaye li ko inspiré mawaahibu la ñuy wax ku ñuy wax Cheikh Daymani borom Zahab al Ibriz Cheikh Mouhamad Yadaali ak Daymani moom lañ ne dafa mas a teewe ab jataay benn waykat di way ci al-lahja al-hasaniya làkku Mauritanie bi muy way mu way ci daal ci baxru bi way yu neex neex waaye ab buur la ko woy bu ci Ahmed ibn Hayba al Burkani moom la ko woy woy neex lool mu ne lii daal maanaam daaj bu neexe nii moom soxore naa ko dul yonent sallallahu alayhi wasallam lii moom maanaam yonent dong moko ko moo moo ko yeyoo Cheikh Ahmed Mouhamed ya daal daymaani daal di ci daal ci tëgg genn xasida mooy salaatu rabbi maa salaami ala habibi xayril anaami ba mat ñeent fukki bayit ak juróom benn wax nañ ne maanaam loolu mooy li inspiré sëriñ bi maanaam mawaahibu bii waaye ku na xam ne ne kon mën naa ñu jàpp ne Mouhamed Dali Daymaani xëy na moom mooy ki ci fil maghrib al islami li ñu tudd al maghrib al islami maanaam réew ji li ci féete sow jant xëy na moom moo ko fi njëkk moo ko fi indi daal baxar boobu waaye sëriñ bi nag jël ko nag tëgg ci mawaahib tëgg ci yeneen qasida waaye àndi ci ay ay ay ajaib nag ci mawaahib naafi moom xasida gu mata mel na ne ci biir bu njàngatee téere bi sax gis ah. bu taxaw nga ci waaw waaw wax dëgg dafa am dafa am solo lool wax dëgg yàlla dafa bari dafa bari yëf mawaahib bu nga xam ne wenn tur rotu ci wenn tur rek rotu ci maanaam lépp ay ishaaraat la waaw kenn ku nekk daf lay aw dàkkental la lay indil mawaahib mhm. bu daal jàpp naa ne gëstukat yi mhm. war nañ cee taxawaat bu baax a baax gën koo gën koo gën koo fésal ndax am na am na am na sarwa daal sarwa fikriya sarwa luxoya bu ci nekk boo xam ne maanaam lu ñu mën a lu ñu mën a bàyyi xel la loolu mooy li aju ci al al al wazn léegi nag ci xaafiya bi xaafiya bi am na sëriñ bi ba baat luzum maa la yelzam luzum yeedi loolu moom bari na lu mu koy waxal boppam moom loo xam ne yàlla moo ko moo moo barkeel sama luzum barkeel sama jinaas baat boobu daal bari na lu muy dikk luzum maa la yelzam lii farata ci woykat ci daaneel moom mooy arafu mujj wi xasida gi na daanoo wenn araf leneen lu ca topp rek maanaam warlul sa bopp lu la warul la nit ki maanaam suara yi dañuy def loolu ngir wane seen xarañte sëriñ bi nag moom tim loolu daf ci daf daf ci jaar moom daf koo def maanaam am na xasida goo xam ne xasida goo xam ne ilallaahi qad wajjahtu hamdi bi shukrihi ala man maha kaydal aadi bi ibtaali xam nga fii li fi nekkoon farata mooy léegi rek xasida ga na jeexa léegi rek waaye alif gi jiitu ko ibtaali ak taa jiitu alif gi loolu nag ñaar ñaar ñaar ñaar la sas boppam foofu ñaari araf ñaar ñaari araf yoo xam ne waaw taa gi alif gi nga xam ne baytu yu ci topp ma nabi yi nabiyun jàmmal allahu xalqahu wa axlaaqahu wal juudu musrin liha taali nga gis taali waaw gis nga loolu kon kon loolu day bari daal ci xasida yi ala nimtidaaxul muntaqa fi taxarubi guyubaati mandil muntaqa arsala ruuxa xoolal foofu ñaata la fi la fi kii ci baytu ñaata lay fa xadamtu lazi abqa bihi llahu rabbuhu fuaadi wa jusmaani kama saana lir ruuxa gis nga kon Eh, maanaam xaage moo ciy farata waaye ak waaw jiitu na ko gum farataal ci boppam ak raa jiitu ko goo xam ne ñett yooyu yëpp daf koo boole def ko farata yooyu mooy ay lu luzumiyaat luzuma la yalzam comme ni nga waxee moom day mel ne bu ñu xoolee luzuma la yalzam ci biir ni ko sëñ bi defee hmm. moom léeg du yem ci benn baat rek. Ah. naa jël nisfu kalima. waaw ah, ndax am na ci bayir yoom te ni mu ci loolu la dëgg la moom daanaka. waaw ah, xam nga loolu. waaw waaw waaw waaw loo loolu xam nga lu lu kii maane la. Mhm. maanaam ki ci gënoon a siiw muy abul ala al maari daanaka jàpp nañ ni moom lim ci def. lim ci def def ko nag moom takkal takkalu fan. Mhm. da ko doon def rek sant yàlla rek da ci doon sant yàlla rek ci ci ci ci lim ko may ci eh, ci ci wàllu xereñ ci way batay amna am na leneen lu tan tanwi al qawafi waxon na ne euh li farata li gëna siw moy qasida gi lépp daanoo wenn araf waaye nag léeg-léeg mu andi ay ay ay ay gën qasida go xamne ay ay arf yu bare bare bare lay lay ki buñ jëlon qasida gi di midadi man yutii rasul faqad ataa allah foofu def na ci lu xar bax lo xamne manam maanaam xaafiye bi daaneel bi day wuté daf ko def par ñetti bayit ñetti bayit yu ne ñoy bok arafuñ tàmbale ñaari bayit yu njëkk ñoy bok arafuñ daanel ñettelu bayit wi day bok day day daano arafu bok ak arafu njëkk wi buñ jëloon midaadi wa aqlaami liman zahzaha al yamma yemma midaadi kama zahza shaytan wal jahla wal ghamma gis nga ñaari ño bok mim la commencé mim la daano ñaarul bayit wi day daano mim maha allah an alqa adan xalqahu amma maaze bil baqi li si xidmati ramma ñoo bokk euh, min allahi ñoom ñette min allahi min annaari wa cheytaani qad uztu mun damma bi rabbi ila xuddaami man indahu l asma njalbeen gi la moo tax ñoom ñett ñëpp ñu bokk waaye boo jëloon ñaareelu kii bi nawaytu bi madxi man ataani nawaaluhu wa inni bi ma lixtira qatan iyaaluhu gis nga lu gis nga kon nuun la tàmbalee daanoo ak laam nasakata mugnin azza qatan mithaaluhu wa waajahani rabbi wa waajahani dunya wa oxra jamaaluhu gis nga ñaari bayt yu njëkk yi kon ñoo bokk fu ñu daane ba nabastu ñetti bayt yëpp ñoo bokk fu ñu tàmbalee nabastu nawaytu nasakata ak nabastu nabastu lfira lillahi jalla jalaaluhu bi madhi lazi amdaahuhu zahzahat huzna nuun gi mm. nga xam ne moom mooy mandargaal njëlbeenu bayt yi moom la daaneele kii noonu la ko defee par ñetti bayt yu ne nga xam ne li ci yéeme mooy aayat aaya bi man yu yuti rasul boo jàngee xasida gi tàmbalee ko nii rek wàccee sa bët ñetti bayt yu ne da nga am wenn araf nga xam ne danga koy jàng nii li ñu tuddee njàng amudiyan bu dee ufuqiyan boo gisee ñetteelu bayt wu nekk ñetteelu bayit bu nekk araf wa ca mujj wenn araf lay doon ci ay alxuraan nga ay mën koo jàng ci ci njalbeenu bayit wi jàng ko ci mujjantalu bayit wi waaye bu dee ci mujjantalu bayit wi ci ñetteelu bayit wala araf wi di feeñ man yuti ar rasula miim gi mi ngi nii fii moom la jeexe fii nawetu ji noon gi moom la jeexe fii moom la jeexe ci baytu mujj bi day ñëw ci xaafiya bi waaw kay boo xoolee tamit euh, sadrul albayt waaw jël benn bayit gi dafay ñëwaat. da ciy ñëwaat waaw waaw ma ko mbir mu yéeme yéeme moo xam ne daal sëñ bi waroon na ci xarañte goo xam ne ci ci wàllu taqfiya ndax euh, li ñu tuddee tatris rek mooy tënk tënk ak xasida ci aay rek loolu lépp day duggaat ci luzumiyaat yi day duggaat ci luzumiyaat yi waaw kay. jërëjëf day mel buntu la boo xam ne buntu bu am solo la ndax li muy wane dëgg-dëgg rek day feeñal xaaral la gi nga xam ne moom la sëriñ bi di faral di def ci biir ay woyam. Hmm. mooy ci xaafiya bi ak awsaan yi nga xam ne moom lay jëfandikoo nga waxit lu am solo ci xasid ak mawaahibu annaafi ah, moom moom murid yu bëree bëri <laughs> léegi la daal danga nga dut xam noo koy tuddee waaye dañ ci juum lu bare bëri <laughs> ah, di ci dogu ne sëñ bee njëkk a def ah, lii nga ci waxit mat na di leeral bu baax a baax abu nuwaas moomu ku ne xam ne ne ca jamonoy abbas yu na <laughs> la doon yàgg na lool ak al imam al yadaali moomu nekkoon murtani moo jiitu sëriñ bi ci ci lu lu mel noonu. Ah. loolu nga wax am na yeneen xasida yum ci def lu mel ne. lisaanu sukri madal xabiir waaw même mawaahibu mi sax mel na am na beneen seex am na beneen seex naan nuzhatul aashiq ah, xool day mel ne moo jiitu ah, mawaahibu annaafi nuroo nañ lool sax ci dëgg la dëgg la dëgg baat ah, lu mel noonu lu mat di leeral la ndax léeg-léeg it am na yoo xam te nii da dul xam-xame ndax xam-xam lay doxee euh, di ko leeral si yu mel nii dana ci baax lool ci sant bu baax baax xam naa day mel ni bunt bu mujj bi moom mi ngi jëm ci at taswir al fanni Ah. fi siyaari al madih an nabawi li xam khadim xamna momit buntu la bu am solo ah. ñu tan ci rek yenn afkar yo xamne euh japp nañ ne mo ci gëna rot ñu man ko jangat do a ñew nak ci tomb yi ñi tay wala li ñi tuddé at taswirul fan yi moo mustalax la terme la bo xamne ne nuqaat dañ koy jëfëndiko jublu ci kat bi buy wax di wax ay natal manam diw gaynde la nataalu gaynde nga jël ko jox ko nit lu mel noonu la ñuy tudde ak taswirul fanni ci gàttal génnul rek daanaka tasbih istiaara kinaaya xëy na la cay taqaat mooy badiiyaat yi donc bayit en tout cas bunt bu noonu lañ ko tere la moom jël jaanib bi nga xam ne moo aju ci maanaam at taswirul bayaani mottalee ko at tashkilul badii mooy badiiyaat yi benn benn benn mapage rek laa ci jël ndax comme ni ma ko waxee fi taswir fan yi am na tashbih am na istiaara am kinaaya am na it ak tashkilul badii yooyu ñeenti mapage yooyu ñoo ci nekk mais bu ma jëloon tashbih bi rek euh, liñ njëkk seetlu mooy sëriñ bi dëgg la dellu na ci turaasul arab niñ daan tashbihe xam nga naar yi moom bari waa na ni ñuy tashbihe nit jàmbaar gaynde ab tab géej ku rafet weer kilifa gu kawe bari njariñ ab jant lu mel noon loolu moom siiw la na ci dëgg la tënku na ci waaye andi na ci nag même loolu mu tënku rek andi na ci ak yeesal euh, xam nga bu ñuy nurale nit aw weer mooy ne kawe na rafet na lu mel noonu lañ ci jublo waaye xoolal sëñ bi ca gazwatu badra mu ne yonente sax fi yow mi bad bad fi yow mi badrin bada badran waaw bada badran ci xare badra bi yonente sax dafa pël mel na aw weer maanaam du jëmmi tashbih bi mu am solo mooy maanaam li wër tashbih bi mu am solo xam nga di dem ci xeex xam nga buñ ne diw dafa leer ba mel na weer maanaam xar kanam ba dafa belli bég na xelam dal na waaye xool di dem ci ab xare di dem ci ab xare nga pël sa sa sa xar kanam mel na weer maanaam mooy la ko yàlla dig ci ngañaay gëm na ko te ca lay dox ca lay dox moo tax ca euh, ca ca jës bu qad qaama xayrul bashari wasta xiyaari zumari ila zawi takaburi kal badri wasta anjumi maanaam leer gu saa salaam saxaaba yi sax dañ ci amaale ñoom ñi xam ñoo war a xeex xeex bi kat ñoom sax it na ñu ngi mel ni ay biddiw ndax ñoom tim gëm nañ ni ñaar rek mën a am xeex gañe wala ñu gañe la nga dem àjjana léegi moo tax moo tax ñoom tim seen seen dañoo bëggoon dañoo bëggoon ci ci ci xeex bi donc loolu benn la ci ci li nga xam ne sëriñ bi sax maanaam la naar yi daan jëfandikoo ba mu ci accès fëgga fëggaat na ko ba mu am beneen feeñuwaay bokk na ci li nga xam ne nag ak ak ak beesal la man ci lu ma xalaat mooy dangay gis ci xasida yi lu bëree bëri muy présenté ki ñuy nuróole xam nga xam nga normalement buñ ne diw daa nuroog gaynde diw mi ñuy nuróole gaynde moom lañ defal promotion ndax dañ koy yëkkati yóbbu ko ci martaba gaynde ci njàmbaar mm-hmm. kon ku ñuy ku ñuy nuróole lañ lay nuróoleel moo la ëppale ci lañ lay la ngeen bokk léegi nag <laughs> léegi nag sëriñ bi andi lu lu xaw a niroog tashbihu tafdil ni mu koy defee mooy daf naan taaram ba de wala taw gàcceel na waaw gàcceel na loolu moom ci moom moom wax dëgg yàlla manhajam la daf karumta wa foqtal kulla yaa xayra musin alayka salaatun tibuha axjalal miska yàlla na yàlla defal la xéewal goo xam ne xet ga de gëttam ga dana gàcceel misk ku uusuka tasqini biha da busharatin wali quta faydan ax jalal baxra wal wal wal fulka nga gis maanaam kon ax ax jala azra yooyu maanaam tashbihu tafdil ci lay ci lay duggaat ci lay duggaat waaye loolu si moom daanaka mën nañ ne ci wàllu tashbih moom lu mu fonk la lool barakatul mushaffa'i muxjalatun li madfaayi muxjalatun li madfaayi gis nga lépp luy gàcceel rek tashbih la kon lañ mi noon mooy ki ñuy nuróole lañ koy nuróoleel moo ko ëppale ci waaye fii nag moom fii nag moom safaan bi la day mel ne kon lañ lay nuróoleel yow li nga yor ci melokaan sax gàcceel na moom lam ci yor yaa ko ci ëppale kon loolu nag daf koy def fi xaqi nabi sallallahu alayhi wasallam ak ci àq ay may yu ko yàlla may ak ci yu mel noonu wajhu nabiyil afiyadi yuxjilu badran fi yadi loolu loolu kon yaakaar naa ne yu yu baree bari la loolu kon benn beneen biit lu nga xam ne seetlu nañ ko ci am mbindam mooy euh, gis nga melal ab xalaat boo xam ne kenn mënu cee teg bët nga toxal ko ci ay baat ba mel ne bët da ciy teg loolu jafe-jafe la loolu fi ci xam na sax du ci ma madih mooy ca inani usuji ba mu naan maasikat bil kitaabi maska daririn bi aydil qaidil basiril muayini man ni ma jàppee ci téereb yàlla bi mi ngi mel ne gumba gu jàpp ci yetu ku koy wommat ku ko yërëm di ko dimbali di ko wommat na muy jàppee na mu ci amee siqa du weeranteeg moom day téye rek fu mu ko jaaroo mu jaar fa noonu laa jàppee ci gi xoolal loolu rek fa yàgg naa ne tagg yonent bi waykat yi yëpp dañ cee xuus waaye kenn mënta dem ba jeexal ko xaarami daadi yi xaara fu aadi an madxi haadi lil budalaay waaye ca mimi yeba ca mimi yeba bam naan laakin wana wana laakin wana dahra an amdaaxihi shucara wan yal asaabici an an an massil li jërmi sama waaw maanaam shucara yi lott nañ ci tagg yonent bi sallam loolu lortaay boobu fu mu toll mi ngi ñu ne mi ngi mel ne nii ki taxaw fii bëgg a tàllal baaraamam ne day laal asamaan waaw ki tàllal loxoom ne day laal asamaan ni mu lottee rek noonu la ñee lotte xoolal loolu nga xam ne ab fikra la ak bu la ko xasee wax nga mel ne yaa ngi gis suura boobu ni mu xoromoo nit ku taxaw ne day day jéem a laal asamaan ci yëkkati loo xam ne daa bëgg mu laal asamaan si bunta nekk mustahil la loolu kon naqlu ay afkaar mujarada ci ay baat fesal ko ba mel ne nit ñi ngi ci teg bët loolu it ba tey lu am solo la bokk na ci it te loolu ci lay daane la ci bunt bi xëy na nuróole ay taggam ak xasidaam ci ab jànq ab jànq loolu yi ba tey lu bees la ab kaarul am daax jànq békkër ci arab daal mooy njalbeenu loo loo mas a gis lu kenn laalagul daal lu kenn laalagut loolu mooy bikkër ci arab moom def naa ni tag bi ma jox yonent bi saa salaam kenn mës koo ko jox. ab kaara am daaxin. ab kaara bikkër moom moom wax dëgg yàlla loolu yi ba tey. ab kaaru madhi li xayril xalqi qad zufifat madhi lahu qad ada qad gada min afdalil qurabi waaw kon yaakaar naa ne ku ne jànq nag ñu baal ñu rek xëy na dañuy leeral uh-huh. yaa ngi xalaat ab laabaay nit koo xam ne ku ku boppam la uh-huh. nit koo xam ne ku laab la ku am lu muy jomb la maanaam ak it koo xam ne ku am originalité la uh-huh. asaala daf ci am solo maanaam loo xam ne daal dara dara dara gàkkalagu ko kon taggam wi noonu la taaroo noonu la laabe kenn jiitewu ko ci it waaw surtout surtout loolu nag taaram taa taaru woyam yi kenn jiituwu ko ci loolu la bëgg a fésal foofu day mel ni day gën a firndeel li nga doon tudd ci bi ñu doog a tàmbali waaw euh, di wane na ay woyam am na fu mu egg foo xamante ni daanaka boo comparé ak way yi ci des loola la daan wax <laughs> ax jala sa jaa wala was naa ji mu daan wax loolu la lu ci waaye mën a tagg yonente bi saa sallam ay taggam raw na ko loolu kon kon kon loolu lu lu feeñ ci mbir mi la te kuy jàng xasida da ko gis lu bare bare bare bare bikran masunatan anil fahsha'i ci ay ay ay midam kon loolu leneen li nag xam naa mooy badiiyaat yi xam naa bu fekkee ne waxtu yu maye na ko mënees na cee mënees na cee. mën nga cee indi barkeelu rek yenn ci ay exemple pour. ndax it ñi topp gën xam dëgg-dëgg. ndax ndax ndax lu tax. kuy jànq si da nga dégg muy tudd baatu jinaas. di tudd luzum. loolu liñ ci lu mooy mooy mooy liy taaral woy wi. ay ay ay baat la yoo xam ne dañ koy jëfandikoo ngir mu taaral way wi. léeg nga gis ñaari baat yu benn nuroo lool bay benn waaye seeni maanaa sore lool xoolal yaqiini yaqiini tarka am daaxi tarka am daaxi sayidin yaqiini yaqiini tark am daaxi sayidin kafaani bihi lbaaqi sawi zulmi wal xëy xoolal yaqiini yaqiini ñaari baat yi moom cent pour cent ñoo nuroo nuñ leen bind noonu la leen jànge waaye benn baat bi yaqi la boo xam ne fi'lu mudaari waqaa yaqi la noonu wiqaaya gi ak yaa gi nga xam ne fool bii la yaqiin ji tas mooy mooy mooy mooy lu wóor xam-xam bu wóor kon yaqiin yi yaqiin yi nga xam ne nit ki bu koy dégg day yaakaar ne mi ngi mi ngi ñaari baat dañ ko répété déedéet répété wuñ ko loolu nag mooy mooy mooy li nga xam ne euh, mooy jinaas te baax mi ngi ci waaye am na loo xam ne bëgg naa ñu bàyyi ko xel ci badiiyaat yi mooy li ñu tuddee talmiih joxoñ maanaam junj allusion ishaara wax ba mu yàgg nga tudd benn xissa wala benn aaya junj ko rek loolu la ñuy tuddee sax ci naqdul hadis atanas intertextualité atanas maanaam mooy nusuus yu yu yàgg ya nga convoqué ko nga barkeelu ca dugal ko ci sa wax waaw waaw waaye ab joxoñ lay doon rek loolu dafa bari lool ci mbind mi am na musala bu ñu ta atanasul quraan yi moo ci ëpp قام قال لقد جاءكم قد جاءنا لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاءكم بعد بوب آية بوب مم واحد قال تناص نك تناص تناص با آه، تبارك الله جسنا للذين أحسنوا الحسن وزيادة ممتين تناص نكو با با برئنا من الأمراض نلنا مرادنا بأمداه من حاز الزيادة والحسنى maanaam aaya bu ko bu ko neexoon la boo xam ne taxaw na ci waaytu uluman nafiatin bi lafzikun wa liqaada rabbi xayra zeydin an il xusna an il xusna boog astafirullah an il xusna donc loolu noonu mu ko defee ci aaya alquran yi noonu la ko defee ci hadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bari waa ne ay hadis yoo xam ne daf ko daf ko daf ko talmee tamassaktu bil hablil matini murattilan wa bil urwatil wusqa allati hiya nuuru لولو باتاي امنا حديث كتاب الله فيه نبا ما كان قبلكم الى اخره وهو الحب وهو حبل الله المتين آه، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم لولو تناص قصص قصصي قصص يعني إيه؟ عليهم السلام في ميم يبي بالمصطفى بحر ما موسى كان منفلقا كما به الروح عيسى لسماء سما يو يب اي قصص انبياء به أولينا لداوود الحديد يجب أي قصص الأنبياء التي التي أم قصة مسيلمة الكذاب ألم ترى أن الله أغزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء وشبه قصة مسيلمة الكذاب ممتن دفق ودفع الإشارة حكى الغمر ألفاظا أشاعت فضوحه وأدبر عن ذكر حكيم وكرها مسيلمة يا كان القصة بلعنا لين ما نون أبيانتلا دنكوي دفع الوحي عند وال الفيل وما الفيل وما ادراك ما الفيل ما ادري انا اعطيناك الجواهر ما انا واحد واحد واخي كان خم الواحد لا لو حكى الغبر الفاضل اشاعت فضوها <laughs> كلام ركيك لا لا كون كون يميل نون بارنا تي كي دال كل صيد في جوف الفرا دفال نكو جوف الفرا للوراء آه، الى اخره ما نم دال تناصب دال واخ دغ يال تخاور نتي بو باخ باخ فين نتي بندم باي تناس دنتي واخ لو ام سولو موي نه باي تناس تي والو شعر جامبر بو فكينا لو سيو لا جيرول nga koy ishara كوم رك اون بيتو ان رسول الله بشرني باسكو كعب او عدني لو من بشرني والبشر عند الله عند رسول الله مامول اك كريم متى امدح وامدح والورع جوجو متى النبي واخون كريم متى تمدح يمدحك رب waaw kay waaw. ak ak yeneen waaye daf ci am dañ ne bu fekkee ne du lu siw da koy ixaala da koy wax mooy li mu wax naan bi man yuxaatibu nii fii zawri rawdatihi baytaani min qawli man bil urfi amaaru daal di def ñaari kii amaana ilmiya bi ñaari bayt yi boo xoolee da nga xam ne lii du ay waayib zur man tuhibu wa in sabtat bi kaddaaru wa xaala min dunihi sahlun wa aw aaru laa yamnaannaka bu'dun min ziyaaratihi innal muhibba liman yahwa zawaaru maanaam comme lii nekkul lu tasaaroo lu yaatu bi ko sëñ bi defee tanaas bi mu ko defee talmiix daf ko indee na ko borom waxee noonu nag la ko la ko kutub balaax yi santaane bu dee baytu wu siiw lool takkarur ci alsun yi bàyyi ko noonu junjal rek ci yàlla waaye bu dee woo xam ne daf xaw a boo ko indee na ko na nga ko na nas ci ne waxi waxi keneen la loolu daal xam naa ne xëy na wax ju tënku na waaye mënees na cee jàpp ci bunt boobu. jërëjëf sëriñ Abdou Lahad euh, mel na ne bunt la boo xam ne euh, yaatal nga ci waaye nag wareef na cee mën a yaatal lool. ndax it xarala gu bari da cee feeñ. ci biir mbindum sëriñ bi xëy na su ko defee nag dañuy ñëw ci ñaari bunt yi ci mujjoon muy bunt bi nga xam dafa jëm ci importance su xam-xam yi nga xam ne moo jëm ci wàllum littérature njariñ bi mu am dëgg-dëgg. ci nit ki mëna xam ndono li fi sëriñ bi bayyi ci walu xam-xam ban solo la xam-xami literature am ci biir ki bëgg xam njangalem sëriñ bi dëgg-dëgg ak ndono li fi sëriñ bi bayyi mm, waaw jërëjëf sëriñ Mbacke laaj bobu laaj bu am solo la euh, ndax ma ngi koy jooytu ci njalbeen gi naan loxo yi daa ci. ci majal bi ci domaine bi. mel na nag nit ñi bu ñu xamoon importance bi domaine bi am ci wàllu ci dégg mbindum sëriñ bi danañ ko gën a jox gëdd. Mm-hmm. Euh, ku ne xam ne ne sëriñ bi moom bëgg gim mu bëggoon làkku arab làkk wi rek la waxuma maanaam afkaar yi mais làkk wi rek daf koo bëggoon mm-hmm. li ciy firnde mooy gisuñu mu bind fenn bindu wolof mm-hmm. lim bind lépp ci arab la ko bind di wax na jaawat rabbi bi lisaanil arabi bilaa nihayatin wa taabat qurabi نزع لنور اللسان والكتاب أزمان خدمة لدى أهل الكتاب كون باتا كرامة خط دي جما وخم في خدمة المؤيد مانام خم خامي خم خامي لاكو عربي موم دا بوكو تي بيرمي دنجكو تي ورا بوله مصطلحات صح سن بي واخ نكو سانك النحو والعروض والبيان لي سربت ولي بها عيان لو مانام مصطلحات صف كوي تود اي لزوميات اي جناس يوي سا فار تودل بوبام xëy na ah. waaw te waaw waaw nit ki nag taalibe bi nag li ko war mooy jéem a xam lool yi mooy lan ak ban importance la am ba sëñ bi di ko tuddal tuddal boppam. bu ko tuddal boppam kon jàpp naa ne ngir dégg turas bi dëgg dëgg dëgg dëgg mënee suta ihmal jaani bi luxal arab bi mënta nekk kenn mënta sàggane làkku arab bi làkk bi ci boppam ba noppi dégg turas sëñ bi. loolu kon moo dal jullit ñi ci langue arabe it mm. alquran ak hadis yooyu yëpp kenn mënu koo dégg te géeju woo ci wàllu xam-xamu làkk arab loolu moom xëy na waxtu wi xat na waaye eh, manees na ko waxee noonu euh, euh, te sax lii nga wax si ñoom laat day mel ne li waxoon wa baadaha laa budda min al alaati ah, lil bahs fil ayaati waaw <laughs> waaw waaw waaw wal lugaati <laughs> mooy mooy mooy ah, dëgg لول موتا آه، خم غا نيكول اب جوبلو واي نيكول هدف نيكول فيناليتي واي نك جومتو واي لا بور مانا گستو سي القران گستو سي حديث واي گستو سي ترا سرين بي سخ نك واي جاب نانا كو ام كو جيكول لاكو عرب دك دك دك دك دك سي گستو سي سرين بي دينا ام اي ليميت يو بري بري بري بري بري بري داخ ديغا باري اي مصالح يو خم دا نكاي رومب كون تيكو تيكو دكو داخ دوكو مانا ليجينتي دوكو مانا ليجينتي doo xam luñ ci jublu doo xam luñ ci jublu sëñ Bakab Rahman laa dégg ab bis muy wax ne euh, nit ki su bëggee mel ne daa toog ak sëñ bi di jël ci sëñ bi sëñ bi di wax ak moom na jàng arab ba xam ko su ko defee moom muy jëlal boppam waaw ah, kay lu lool rek dañ la koy joxee jërëjëf ne man la koy joxee ci anam ko la koy jox waaw moom aw na rek la jox la <laughs> jox la dëgg dëgg lu am solo la lu am solo libéré maanaam loolu mooy liberté bi am ci wàllu njàng boo jàngee yër da ngay am liberté de choix si bu lol rek na daanaka da ngay tok ñu lay jox li lay jox nak ki mëna la jox li ki jox la lé mu waro nga tambali gëlem tambali am dal ay jix kon yaakaar naan waxtu wi lol la manam lol ab la rek ci woné importance bi njangum lak arab lak arab luxa arab ak adab dafa am solo lol ci dégg Cheikh Ahmadul khadim am solo ci dégg diine sax nak kay Serigne abdullah Ahad Eh, wax deug yalla buntu bobo buntu bu am solo la yakar na ñi geussu te bëgg xam deug deug njàngaleem sëriñ bi war nañoo gën a yittewoowaat eh, langue bi nga xamne moy langue ndax ni nga ko waxee rek moy danaka sëriñ bi lim bind bari na waye mune mune fu tawane na li ab lettre la bo am tin da ko bindon ci wolof. jëme ko ci kenn ci mag ñi mag ñi ñepp kum ci waxal. lam day bind arab lay doon. lolo tayit it dañu damay japp ne sax loolu ñun dañ ci wara déggé ne mag ñi ñomit jekk nañ langue ndax lan motax serigne bi doon wax ak ñoom ci arab lolu buntu la bom xam bu mata a gën wat xel la ñi gëstu tamit di ci gën di xoos bu baax a baax daal jàpp naa ne buñ ci gëne xoos lu bari ci li nga xamne dafa neub won ci biir mbindum serigne bi dana dana rawati na jamono ji ñu toll xamna buntu bi ñi tëjee moy jamono ji ñu toll ak suñ xolé dañu gis ne yoonu mourid yoon la wo xamne mi ngi gën di wo xam-xam hmm, renaissance scientifique mi ngi tàmbalee am ci walu yu bari bari lolo di yow nak nga ko gisse ak yan ya, taxaw lu nga ci am serigne mo fatis xana sante yalla bu baax baax yakana lolo buñ koy tuddu mom dañ koy tuddu ci buntu sante yalla ndax gis nañ ni nga ko waxee xam-xam melne na ne dundat na ci yoon ci anam go yeme te firnde moy sa émission bi rek nga xamne ne allahu wal qalam ay kat rek ngay dalal ñu bind ay téere yoo xam ne wax dëgg yàlla téere yu mel na war a mel la te yaa ci xalqa boo xam ne yaa ngi àll xalqa def nga seize épisode te jeexalagoo loolu nag lu dal xel la wax dëgg yàlla te it li li li gën a dal xel mooy mbind yi ñu bind ci yoonu murit dafa yaatu ginnaaw du du rek benn domaine ma xam maa nga sànq maa ngi joytu waaye du du du rek ci adab du rek ci philosophie du rek ci wàllu pensée du rek ci wàllu sociologie waaye ci domaine yëpp la wax dëgg yàlla domaine yu bare bare bare bare bare fi mu doon yaakaar nit ñi sax li ñu yor ci ay téere yu ñu war a mool te sax xëy na amuñu moyen mool ko moo ëpp sax li nga xam ne moo génnagul kon loolu moom dañ ciy dal xel bu baax a baax a baax rawate na nag ñu gis it loxoy ndaw yi di ci dugg it ndaw ñi seen loxo di dugg ci mbind mi loolu it maanaam dina dal xel ëllëg ndax lépp loo xam ne mi ngi yëngutu te nga gis ca loxoy ndaw ñi eh, mën nga caa dal xel bu doon mag ñi doo nga koy def waaye ndaw ñi ñi féete suuf tax ñu ngi ci di bind mbind yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, taar ba ak na mu war a mel mel na ko loolu nag kon lii ngeen di def lu mel ne seen barnaamaj bi euh, da ci am taxawaay bu fes boo xam ne lu jara encouragé la lu jara encouragé la mu gën a yaatu maanaam télévision yi bëree bari sax waxuma télévision numérique waaye télévision yii sax war nañoo wut ay émission yu mel nii ngir fesal ko wax deug yàlla de man jàpp naa ne amul ben kurel ci Sénégal kurelu diine ci Sénégal fi toni bu meuna don mo xam tariqa sufi wala ab jam'i islami bo xamne ne bind ci yoonu murit ñang fay bind lu ni tollu loolu de man wax deug yàlla loolu laa man na ci juum nak waye man limay limay li may dund daal di gis wax deug yàlla gisuma ben kurel bo xamne ñi ñu ngi produire lu toll li ndawi murit di produire ci walu xam xam-xam loolu mom Oh, eh, production bi sax daanaka yi ñuy muur waaw rek lañuy gis comme ni nga ko waxee sax ay li nga xam dañ ko bind la ko tay ji gis nga ku mol ben téere way bo xoolee man na am sax ñu bari ay fukki fukki gëstu yoo xam ci ne war na mëna doon daanaka ko ko gis mu mol ben kay denc na <laughs> denc na yu bari ñak ay way ak moy moy tax ndax mol bi daa xaw a seer gëm ne li ñu yor ci ay manuscrit ay maxtuutaat mhm. bu gennon mom yaakaar marché bi dina inonder loolu nag lu mat a sant yàlla la te di ci encouragé nii ñi duñ ko bàkkoo rek waaye dañ ci war a gën a jàjju gën ci soññante gën ci encouragé ndaw ñi surtout. ok jërëjëf sëriñ Abdou ci euh, seetlu bu am solo boobu euh, muy jamono ji ñu toll moom yaakaar naa ko am ab seetantal da gis ne yoon wi mi ngi gën a jëm kanam ci wàllu xam-xam looloot li nga ci wax it ndaw ñi ñu ngi ciy jéem dugal seen loxo. waaye xëy na ndaw ñett euh, ni ma koy faral di waxee rek mooy dañoo fekk ay mag ñoo xam ne euh, am na lu ñu def. mu mën a doon ab sukkandikukaay. ñoom it jàpp jàpp naa ne suñ ñëwoon fekk ñu fi daraat ñu tàmbali dana jafe lool. kon ndaw ñeet ñoom dañ koy dañuy sant suñu borom waaye di santaale mag ñi xam ne ñoo leen xàllal yoon wi. ba yoon wi xaw a neex a jaar. mun naa kon su ko defee dañ lay jox nga tàggatoo. ñu tëj jataay bi ba. waaw xam naa di leen sant nag yéen wax dëgg yàlla yow tim nag ñu lay encouragé di la ndax ndax waar wi ngay li lii moom émission bi nga nga nga di ko animé du du du kii man daal ndax ku la xam ci say gëstu ku lay topp sax dangay ngay da nga naan xam ne sëñ Mbàkke daal <laughs> maanaam du nelaw du du def lu du bind rek waaw maanaam kon firnde nga ci ndaw ñi nga xam ne ñu ngi góorgóorlu ci ci wàllu bind ak gëstu xam-xam day ñaan yàlla yàggal sa taxawaay ñu ngi koy ñaan di ko ñaanal seen xanaat bi di alxadimiya it yàlla barkeel ko ya defal ko tawfeex defal ko ay promotion ba li ngeen xam moom ngeen bëgg ak seen mbokk yi ngeen àndal yépp rek yàlla jàppandal ko ñu leen di jox rek ay rendez-vous di ñaan it émission yu mel nii di bari ndax bari bariwaay bi rek mooy firndeel ni mhm. mbir maa ngi dox ah, kon nag bu ngeen dem daal yàlla bu ngeen dem daal baggaak banaan tey amatuñ kuñ dem fu ngeen toll rek yàlla na ngeen am ku ngeen di invité ya loolu lañu ñaan jërë ngeen jëf ok jërëjëf Serigne Abdullah Hat, ñu ngi lay sante bu baax ci yaatal gi ñu yaatal ak nongo, gi nga xamne mom nga nangu and ak ñun émission bi lolo dañ lay sante tay di santaale mbooleem bindkat yi ne ci yoon wi ndax deug yalla kuñ ci feug ab buntam danañu ubbil lolot day wane rek bëgg giñ bëgg xam-xam ak ñor gi leen mbir mi nga xamne ci lañ nekk ñor ndax japp nañ ne mom lepp lu ñuy wane ci lu baax li ñu am muy ay mbind yoo xamante ni bind nañ ko te mu jëm ci yoonu murit tamit mbind yëpp doon lu am solo di ko wane tamit baax na lool ndax dana tax ñi ci nekk gën a góorgóorlu dana tax it laabire yi nga xam ne léeg-léeg mi ngi ciy jóge di bàyyi ko ci ñi ñuy dalal di jëm ci ñi xam ne ñoo koy topp ñu gën a am ak farlu gën a am tamit yitte ju kawe ci liggéey bi euh, xam naa su ko defee lii mooy liñ leen andiloon rek ci jataay bi nga xam ne mooy allahu wal qalam di fukkeelu jataay ak juróom Euh, ñuy ñaan suñ borom subhaanahu wa dajale ñu ci ak ngërëmal sëriñ bi nga xam ne moo tax ñu koy def di sant tamit sëriñ Mamour Touré mi nga xam ne moo jiite seen bi nga xam ne mooy alxadimiya ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne mu ngi koy taxaw ci yoonu morit di sant tamit sëñ Mbàkke Mbegere mii nga xam ne moom la àndal mu koy jël ci anam goo xam ne euh, ñëpp dañ ci mën a jariñu ba mu tasaaroo ak mbooleem mbokk yi nga xam ne ñu ngi baaxoo topp jotaay bi di ci joxe seeni xalaat ku ci mel ne sëriñ Abo Kebe mu soxna waalo mu sëriñ Saalix ak ku ci mel ne sëriñ Abo caw moom yaakaar naa kenn umpalewu ko ku ko yittewoo la waxtu wu ne da koy da koy topp di ci joxe ay xalaatam ak tamit mbooleem borom xam yi nga xam ne jot nañ leen a dal ci jataay bi suñu abdulaat santaan nañ la bu baax a baax dëgg yàlla gis nañ ni nga taxawee ci émission bi gis nañ tamit ni nga xamee ne jox ko yitte bu baax a baax tey liñ soxla woon ci téere bi mel na ni lu ci bëree bëri am nañ ci lu kawe suñ njort ñu ngi ñaan mu doon ab bunt boo xam ne dana doon bunt bu tijjeeku ngir ñi nga xam ne ñi ngi doon dégg téere bi te xamuñu ko ñoom ñu gën a am iqbaal gën a dëgmal jëm ci téere bi jënd ko mu tasaaroo ndax téere yi ñuy moolit euh, ñi koy moolit jàpp naa ne mooluñu ko rek ngir mu doon loo xamante ni dañ koy teg waaye dañ ko war di jàng di ko liir di ci jariñu côté boobu maa ngi ci soññ sama moroom yi di ci soññ tamit ñuy gëstu ñu gën a liiraat téere yi gën a tamit jàngataat li ne ci biir ndax danañ ci mën a jariñoo ci jamono ji ñu toll même jamono jay ñëwit danañ ci mën a jariñoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu